walakin taxsaru nafsak xakim bi nee na du lépp loo xam ne day nuru ne dang ko perte rek dëgg la pertement la léeg-léeg mu am luñ jàpp ne danga koo perte te du pertement waaye du it lépp loo fàggu bañ gis nga jël ko di ko jariñoo rek nga ñaay lay doon mu am loo am bañ jàppe ko am am te fekk du am am bi ci yow du bénéfice ndax léeg-léeg nga ñàkk ay nit ay jëmm yoo xam ne danga leen amoon te ñàkk leen mu mel ni loo xam ne waroon naa mën a metti waaye du metti ndax danga jot sa tranquillité danga am na xel mu dal ci tàggoo gi nga tàggoo ak ñoom ndax sa ànd ak ñoom dafa tegewul woon ci aw yoon noonu it ngay mën a berte ay mbir wala nga am nga am ay mbir fàggu ko ba am ko yore ko mu nuru la lu bare lool waaye ndekki am gi ko am tax na yow nga ñàkk sa bopp ñàkk sa bopp mooy doonatoo ki nga doonoon nit te ji nga waroon a am ñàkk nga ko sa ngor ñàkk nga ko sa jom ñàkk nga ko ndax mbir yooyu noonu nga am rek lim bëgg a wax rekk mooy am na nit ñu nekkal ñu jàpp ni ñuy sëw nit lañ ndeke woo say gangal rekk lañ ñu lay sonal bu suba tàqalikoo woon ak ñoom mu mel ni daa am loo perte ndeke pertoo dara ndax li nga perte muy nit ñooñu gañawaale nga ci sa xel mu dal noonu it ngay mën a amee ay mbir yu bari yoo xam mën na am matériel la mu bari lool ba ñu am ñu gàtt xel di la ci ñee ñu jàpp ne am am la ndekki woo sa jëm yow sa bopp nga ñàkk door a jot te loola danga jaay sa ngor danga jaay sa dignité danga jaay sa jom door a jot ca loole te boobaa kon lool kenn doot ko tudde am am loolu rek la ñu xikma bëggoon a jàngal moo tax nit na xool bu baax lan mooy am am bu ànd ak valeuram mu di ko doogu wut lépp luy amam te nar ko xañ valeuram mu bàyyi loola ginaaw te téye boppam téye di ñu teem euh, ñu bañ a fàtt rek di wax allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala wa sahbihi ñu sant ñëpp di gërëm di jéglu wasalaamu aleykum wa